wala mu xaw a mel ni koy jàng box am arme tuuti ndax moom moom amul amul amul garde moom. ndax bu mu doon dugg dóor bi mu dóor ci kaw noonu moo fausté léppam léppam la joxe kanamam lépp la joxe ndax bu joxee kanamam rek daanaka ko boo koree lépp lay am day am kanam gi yëpp loolu moo waral mu mën a kaawoo. waaw ah, waaw mën nañu ko fay jëlee si yoon moom dañ ko fay war a jëlee ndax lool daa nekk doon suñu aada sax suñu aada bëre simple li ñu naan def ndax lii boo xoolee benn tubaab moo ko fi indi. li euh, bi benn moo ko fi indi te loolu ñu koy def boxe li ñu def te dañuy sol gant ndax boo dóoree nit ki mën na ñàkk dagg mën ko ñàkk dóor fu koy gaañ waaye ñun nag xamuñ loolu da ngay jël nit kork bu noppi mën nga koo def neen lu mooy dóor ci tempaay dóor ci ndax doq bi moo yor siddi di doomu aadama yëpp kanam daal dafa dafa dafa wóorul daal waaw li ma koy conseillé moom mu taxawaat defaruwaat quoi mbër la comme mbër yi taxaw comme état ba mu nekkoon quoi man bu ma ko doon conseillé li ma koy conseillé leen instant yi mu taxaw jël temps bi mbër yi nga xamante ne si ñoom la war a dajal ku ci mel ni man bu ma doonoon bu ma doonoon Modou Lo man damay jël sama revanche jël ko sa ay Papa Sow ñooñu laay di commencé jëm suuf mais du ma jël mbër yi ay Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé du combat. et supporteru Modou Lo yëpp ndax man mu Lo 100 pour cent la ko laamu démb ji nag moom neex na trop quoi neex na trop lépp awee fara bi li ma ci jaaxal mooy xam nga naka ngay nekkee mbër ñëw ba ci biir làmb ji loolay door ngay nelaw loolu daal jaaxal na ma trop. waaw waaw ñi ñi ñi faral ama seen moom ñi ngi naan lii affaire u xërëm la affaire yooyu mais du xërëm ku am xam-xamu làmb ak expérience xam ne du xërëm quoi du xërëm. Mhm. du doole mu dem mu dem jógewaat rek defaruwaat xam nga defaruwaat làmb moom daanu ak daane moo fi am rek du dëgg waaw tey day neex suba mu naqari tey mu neex suba mu naqari noonu rek lay dem. doon conseil dama mu jël mu waaw waaw Tapha Tine day daan bu mën naa am Tapha Tine waaw mais bàyyi fi booy ba ci kanam quoi.